Sunugal 24 point net l'information à leen ak jàmm ci xibaar yi ci Sunugal 24 léegi léegi li gën a fës bokk na ci li gën fës euh, ci xibaar yi Sénégal daal dinay amaat euh, lu toll ci 109 euh, cas bokk na ci ñoom nag juróom ñeenti nit nekk ay cas grave ba tey ci wàllub Covid 19 bi la ñuy wax ak tijjite jumaa yeeg jàkk yi nga xam ne dañ ko tëjoon Aly Ngouille Ndiaye di ci indi ay leeral ne fukki nit ak ñaar rek la ñu soxla ci biir jumaa yooyu le Euh, ca Gambie ay euh, sénégalais yi nga xam ne nag euh, daal dinañ leen déclarer positif ñoom ñoo bëgg nag ñu delloo si leen ci seen réew wa tijjitee li nga xam ne moom mooy euh, sunuy euh, juma ak euh, jàkk ki nga xam ne nag moom mooy Abdoulaye Wilane àndu ci benn yoon naam sax njiitu réew mi daal nay jël dogal bi Karim Xurum Xax daal dinañ koy teg mandat de dépôt moom nag dana taxaw ci kanamu attekat bi leeral yi ci biir xibaar yi lay doon ñu jeexale ko rek ak benn gaal bi nga xam ne dafa suux euh, ca Saint-Louis def nag euh, ñaari nappkat yi nga xam ne ba jamono ji kenn euh, gisagu leen mbokki bu ngeen taaxirloo tuuti yaatal ak faram gi. salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci yaatal ak uh, faram-fàcce xibaar yi nañ leen ko junjee woon ca bopp ba lu toll nag uh, ci 109 uh, test positif daal di nañ koy am niki tey juróom-ñeenti nit nekk ci cas grave coronavirus bi nag mel na ni fii ci Sénégal jamono ji mu ngi gën di jéggi dayoo sunu sukkandikoo ci ministre bi ñu dénk wàllub wirgu yaram bi ñi nga xam ne nag ñooy cas grave yi nga xam ne am nañ ko muy juróom-ñeenti nit ñi ngi ca réanimation l'hôpital principal hôpital Fann ak hôpital régional bu Ziguinchor Abdoulaye Diouf Sarr di woy ba tey di xamle ni euh, ci 1099 tests yi nga xam ne daldi nañ koy amal ni ki tey 109 euh, yi moom moo dellu si positif moom mi leen nag euh, di xamle ne ba tey 107 yi rek 107 yi ñoom ñoo nekk cas contact ñaar yi nekk cas communautaire ñu ngi bàyyeekoo nag benn bi ca Padoua benn bi ca Touba ministre bi di woy ba tey di xamle ni lu toll nag ci ñaar fukki nit ak juróom-ñaar daal dinañu leen di testé négatif maanaam wér nañu ba ñibbi seen kër kon nag bu virus bi tàmbalee fii ci Sénégal ba néga ni toll nañu ci 1995 cas Euh, nekk nag euh, lu toll ci 742 yi wér nañu ba ñibbi seen kër fukk ak euh, juróom-ñeent yi ñàkk seen bakkan kenn ñu daal di koy delloo ca réew ma mu jóge woon kon nag ci lalu l'hôpital yi 1233 malades ñoom ñoo ci nekk ñu leen di suivre ci jamono ji Abdoulaye Diouf Sarr di wéy ba tey di fësal ni askan wi dañoo war a sàmmonteeg euh, li nga xam ne moom la ñu digle ngir jéemam a moytandiku euh, doomub euh, jàngoro bi tijjite jumaa yi nga xam ne nag njiitu réew mi daal na koy sàkku niki démba ca ba muy janook askan wi Aly Ngouille Ndiaye tamit daal dina ci indi ay leeral moom mi le mu ngay xamle ne fukki nit ak ñaar lañu soxla ci biir jumaa yooyu le ca TFM la daal di yëkkati yile kàddu ca ba muy intervenir ci ab émission bi nga xam ne ñu ngi ko fa doon amal di jàngat kàddu yi nga xam ne njiitu réew mi daal na koy andi moom nag mu ngay xamle ne jumaa yi kenn du jékki rek ubbi ko wala église yi waaye nag danañu xool. anam yu war wala saytu ko xool euh, ana yan mesure lañ ciy daal di jël waaye nag euh, les cey mën a doon rek euh, nit ñañuy soxla ca biir du weesu fukk ci biir jumaa yi ba tax na rek danañu dajeek imaam yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo sekk ñoom ñoo yor këru diine yi ba mën a jëfe lu la ba tey euh, ci dogal boobu la ñuy desandi ak euh, Abdoulaye euh, wilaan li nga xam ne nag daal dinay fësal ñàkk àndam ak njiitu réew mi ci ubbiwaat juma yeeg jàkka yeeg église yi moom Abdoulaye wilaan mu ngay xamle ni gisul ana moo fi jar ñuy yàkkamte ak fi nga xam ne foofu la mbas mi toll fii ci Sénégal kon nag moom jàpp na ne nguur gi dafa daal di deltu gannaaw ci dogal yi nga xam ne euh, jëloon nañ ko mu nekkoon nag ay euh, dogal yu am solo yi nga xam ne ñu bari nawoon nañ ko ci waaye nag euh, jamono ji dafa mel ni rek pression moom moo ko daal di jàpp ba mu daal di deltu gannaaw moom Abdoulaye Wilane mu ngi wéy di naqarlu lu ni mel waaye nag moom Abdoulaye Wilane ba tey mu ngi wéy di sàkku ci njiitu réew mi mu daal di xoolaat doxalin yi nga xam ne jël nañ ko. ko ba tey euh, ci wàllu euh, Covid 19 bi la ñuy euh, desandi ak sénégalais yi nga xam ne nag dañ leen a testé positif fële ca Gàmbi ñoom nag ñu ngay fësal ni ci anam gu jaarul yoon wala anam gu metti rek lañ leen tiye ndax boobu ba léegi daal nañ leen testé positif ber leen yóbbu leen ca bërëb yi ñuy fajoo waaye nag la ñu seetlu rek mooy boobaak léegi diir kenn joxagu leen sax. benn pepp garab ngir ñu mën a faju ñoom sénégalais yooyu nga xam ne ñu ngi ca Gàmbi ñu daal di leen euh, teste positif ñu daal di amee euh, feebar bi ndax euh, sunu sukkandikoo nag ca xabaar yi nga xam ne jot nañ ko juróomi nit ñoom ñoo ko fa amoon ñaar ñëw daal di dolleeku si léegi nag ñu ngi ci juróom ñaari sénégalais yi nga xam ne nag dañoo am feebar bi nekk foofe ca Gàmbi nga xam ne jamono ji ñoom am nañu ñaar fukki nit ak euh, ñaar yi nga xam ne euh, dañoo amee jàngoro ji fukk ak ñaar yi ñoom ñoo nekk sous traitement benn nit daal di ci euh, ñàkk bakkanam sénégalais ya fa nekk nag ñu ngay woote wàllu ci jamono ji Karim Xurum euh, Xaam ñoom moom nag euh, daal di nañ koy euh, teg loxo gannaaw ab vidéo bi nga xam ne daal dina koy def moom activiste bi nag dañ koo jàpp rek ne dafa bëggoon a andi attroupement bu bi nga xam ne nag àndul ak armée lu ni mel nag ñu jàpp ne ab jalgati yoon la ba tax na rek ñu daal di koy teg loxo. yóbbu nañ ko sax euh, ca ndugg siin ndax euh, gannaaw ba mu jàkkaarloog euh, juge bi daal dinañ koy teg mandat de dépôt ba tax na nag danañ ko àtte àllarba bi ñu jëm ñu wax ci leneen foofee sax lañ koy jeexale muy ak ab gaal bi nga xam ne dafa daal di suux euh, ca Saint-Louis def nag euh, juróomi nappkat yi nga xam ne ba néega ni kenn euh, gisu leen muy juróomi nit yi nga xam ne nag ñoom ñoo bokk benn famille ca quartier Ndiolofène ca Saint-Louis ñoom nag jamono ji dañ leen gisagul gannaaw ba seen gaal ga suuxee ci waaxu senegal ak Mauritanie ñoom ñi leen nag bokk na ci ñoom capitaine ba bàyyi Cheikh Wade Lamine John Baymar wadd Mamadou Dieng ak euh, Ibra Diop euh, sunu sukkandikoo nag ci xabaar yi nga xam ne jotee nañ ko ci l'Observateur euh, njaboot seen njaboot gannaaw bañ leen xamle ne ñoom ñi dañoo réer kenn gisaguleen daal di nañuy tàmbali di leen wër waaye nag jàpp nañ ne ñoom euh, dañoo daldi di tëb rek euh, ca géej ga euh, gannaaw rek ba ay kilifa Mauritanie jëlee dogal ne dañuy dal seen kaw ba moo waral nag seen gi daal suux jamono ji ñu ngi leen di wër kenn gisagu leen di ñaan yàlla rek mu daal di si def ndox bu sedd mbokk yi mu nekkoon liñ leen indiloon ci ay xibaar xibaar yi na di suba incha allah jaa ngeen jëf. l'information à sa juste valeur, c'est ici même, sunugal24.net